asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk julli mbokk taalibe ak fi man nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax xam ngeen nag tey jii xew-xew bu mag bi nga xam ne ñu ngi ko doon séntu bu yàgg ba tey yàlla dogal na bis bii la tey la bis bi fii ñu féete nag di euh, mbaar mi nga xam ne ci la Sëñ du nekk euh, bi ñu xëyee ci suba la ñu tàmbali liggéey bi liggéey boobu nag bi ñu xëyee tàmbali ko sëñ Ibrahima Guèye ak sëñ Abdou Lahad Touré ñoom ñoo tàmbali liggéey bi waaye mel na ñu ngi ko tàmbalee ci xasiida ak jaalibatu maraaxib bi ñu jeexalee la kër lu waa kër sëñ Amsatu ak ñoom sëriñ Soñ bu ubbi jotaay bi bañ xasee ubbi jotaay bi nag noonu la jotaay bi wéy ci njàngum kuréel daanaka bañ xëyee ba léegi kuréel gu jeexal rek geneen kuréel toog noonu lañ ko tàmbalee te jàpp nañ na it noonu lañ ko wéyale ba liggéey bi di àgg nosin woowu nag xañ na bu ñu nee ba waxtu toksaan dana am soppi kuy ci am ndax waxtu woowu nag xam nañ ne ci la benn benn njàng mi muy ñi xam ne ñoo def rajas programme nañ ci lu mat juróom ñoo xam ne ñoom ñoo wéyal liggéey bi waaye day mel ne bu ñu noppee ci la nag kuréelu suñ gi nga xam ne moo war tëj jotaay bi euh, defal ñaan def def def def jàng waaye day mel ne bu ñu jàngee nag sëriñ Amsatu euh, ñaanal mbooloo mi nu doo yeewee ko loolu mooy li nga xam ne moom lañ tëralee liggéey bi wax dëgg yàlla bañ ko tàmbalee léegi amaguñ ci benn jafe-jafe wax dëgg yàlla kuréel yi respecté nañ liggéey bi sept heures ci suba fekk nañu baree bari ci kuréel yi ñoom teew nañu jàpp naa ne fii ba ñuy jeexalit noonu la mooy li nga xam ne mooy dox ci liggéey bi kon daal yàlla nu yàlla nangul yàlla nañ ci daje ak ngërëmul sëriñ bi li tax daal Cheikh Amadou daxaa xalaat jotaay bii tey ba murid yëpp daje fii di dundal xasida yi liñ ci jublu lépp daal yàlla na ci ak ngërëmul borom bi ñoo ngi sant bu baax a baax nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak liggéey bi mel na sunu kàddu sax foo lañ ko war a tàmbalee tàmbalee ko sunu mbokk daara Hizbut Tarqiyyah yi gërëm baax sëñ Youssou Diop waaye sëriñ am sado mi nga xam ne nag moo ko waafee liggéey bi yëpp ba jotaay bi mën a amee ni ñu koy sant bu baax wax te di ko ñaanal mu yàgg lool te wér ak sëriñ si Mbacke sëñ Moussa mu sëñ Mahmoudane mi nga xam ne moom la sëriñ am sado doyloo jël liggéey bépp teg ci loxoom doxale ko diggante ak Hizbut Tarqiyyah kon ñu ngi leen di sant wasalaamaaleykum